fal bu baax suñu sponsor bi di Genskin yegg si nañ ci de quoi est-il le nom 7 moo jot ci boori Sine Saalum benn ci ville côtière yi nekk foofu fala Abdoulaye Diop daal di euh, teg walisam ak caméra am dugg ci dëkk ba xool ana tur bi euh, lan moo ko waral Abdoulaye Diouf Abdoulaye Diop pardon nuy naa la. ci jërë ngeen jëf euh, ñu ngi leen di nuyu bu ngeen gisee ci sama ginnaaw fii mooy hôtel de ville euh, Palmarin Fakao Palmarin Fakao nekk benn commune bu nekk ci région de Fatick waaye baatu Palmarin bi nag moom lañ bëgg a xam ndax Palmarin Fakao ay village la ñu bëgg a xam tey baatu Palmarin fan la cosaanoo ci topp leen ñu ñu jéem a laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñu waxal ñu lan mooy euh, turu Palmarin li muy firi. ay ci ñu laaj eh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci atelier bi ba xam ñoom eh, xam nañ li nga xam ne moom mooy turu palmarin la muy firi ñu fekk suñu papa salaamaaleykum papa. maaleykum maaleykum salaam sang bi. Eh, ñu fekk leen ci palmarin ñu bëggoon a xam ndax mën ngeen ñu wax tur bi palmarin li muy firi. ci maam dañu ne palmarin palmarin euh, portugais yi biñ fiy ñëw palmier yi fi nekkoon. mais palmarin ci palmier la jógee daal. waaw ci li ñu wax. mais nag xam nga l'histoire moom. ñii dañuy déggee nii lii déggee nii. loolu moo tax léeg leen nit di wax ci histoire ba mu yàgg mu am lu mu dog pour surtout yéen jeunes journalistes yi da ngeen di yaakaar ne paa bi dafa am fu mu juum fekk dafa am histoire boo xam ne xam lépp ci histoire wax lépp baaxul waaw ndax dëkk bu nekk am na cosaan boo xam ne xëj na sàq la. te xam nga saxum dëkk kenn du ko wax. dëgg la voilà ñu laaj ndaw ñi ba xam ñoom dinañ ci xam dara comme ni nga ko waxee grand noo def. Mm, maa ngi fi sëñ bi. yaa si jàmm. lépp jàmm. palmarin tur bi loo ci xam. palmarin daal lu ma ci xam comme paa bi nu mu la ko waxee sànq daal dañoo juddoo. fekk palmarin fii. ñu expliqué ne palmarin palmier la quoi. la ñu yow jëloo bi wax nga waxaat ko rek. non non non non non jëluma ko. du ñu expliqué daal comme que ay xale la ñu. Mm-hmm. du ñu expliqué la ñu mun a jàpp. jërëjëf euh, ñu ngi leen di jaajëf xam naa ma laaj sama gars yi nga xam ne ñu ngi ci liggéey bi. ja jàmbaar naka mu. naka mu ça va. Palmarin nga dëkk. waaw Palmarin laa dëkk. tur bi Palmarin li muy firi. turu Palmarin bi. Mhm. non sama xam-xam dama eggul foofu de. non xaw ma ko de xanaa ma toog xalaat ko waaw. nañ la bàyyi nga toog xalaat le temps que ñun <laughs> ñu dem laajte ki nga xam ni euh, moom mooy Ibrahima Sarr mu andil ñu ci rek ci ay leeral euh, lan moo waral euh, Palmarin ñu tuddee ko Palmarin ñu ànd ak suñu caméraman Pape Samba ay si ñu dem. waaw comme ni leen ko waxee woon dañuy daje ak ki nga xam ne mooy monsieur Ibrahima Sarr nekkoon PCR euh, conseil rural bu Palmarin euh, tey moom lañ dajal rek pour ñu andil ñu ay leeral ci li nga xam ne moom mooy cosaanu turu Palmarin. Palmarin ci boppam euh, ci portugais la jógee palmarinhas maanaam palmier ne mooy sorsor yi ngeen gis nii. daanu garab yooyu du les palmiers à huile foofu la tur bi jógee mais palmarin euh, en fait suñuy wax ji cosaanu palmarin euh, dafa nekk une population boo xam ne c'est une population égalitaire amul ñoo xam ne à part ñu doon euh, transmettre la tradition le soir ñu toog ak mag yi ñu ñuy kii léebal et autres mais palmarin boo ko jëlee dans son sens ça existait depuis euh, le sixième siècle avant Jésus-Christ boo jógee foofu aussi pour nga mun a wax ci euh, palmarin cosaanam aussi di nga remonter la légende dañuy wax euh, la légende le cousinage Aguène et Diambogne boo jëlee cette légende bi Aguène et Diambogne chaviré Diambogne a échoué à Diakhanor donc mun nañu wax ne la première localité de Palmarins c'est Diakhanor donc jusqu'en 1928 mu am le raz des marées raz des marées moom moo disloqué tous les villages de euh, Palmarin yóbbu ngalu à part Ngudumaan Ngeec euh, xew parce que Fakaw la woon Ngudumaan euh, des fu mu nekk actuellement waa Ngeej ñëw fi gën a kawe. ci turu Palmarin bi dégg ni dafa jóge ci baatu portugais ndax mhm. portugais yi dañ fi nekkoon wala. oui portugais yi nekkoon nañ ci parce que en fait euh, boo xoolee la zone depuis euh, la découverte de l' Amérique en 1492 bi ñu commencé euh, la traite négrière il y a eu des comptoirs un peu partout sur la petite cote d'ailleurs <clears throat> à part. Euh, turu cosaan déggantaanu Sangomar Gambia euh, ñu bari nee nañu euh, tur bi gën a fas ci Sangomar mooy baatu portugais la sango di mare il y du sang dans la mare yooyu yëpp mun nañu wax ne existence présence su portugais yi durant cette période de traite négrière loolu moo indi yooyu yëpp ñu koy jaajëfal monsieur Ibrahima Sarr ci leeral yi nga xam ne andi na ko ci euh, turu Palmarin indi na ci yu bëri rawatina rek baat bi nga xam ne ci wàllu portugais euh, la jóge mul muy Palmarin Palmariñas Palmariñas donc euh, mm-hmm. Palmariñas muy dugg muy nekk baatu portugais mm-hmm. ñu koy jaajëfal di jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen ak ñuy seetaan di leen jox rendez-vous ba beneen da jër jërë ngeen jëf merci beaucoup Abdoulaye Diop ci leeral yooyu 7 h jot na amuñu malheureusement